salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci chaîne bi muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di beral nuyoo na ñi nga xam ne ñoo abonné ci chaîne bi comme niñ leen koy baaxoo di leen ko defal saa yu ne rek di leen may ay tegtal yoo xam ne yu am solo lay doon yoo xam ne lu baax ci dund gila la ci njaboot gi tey nag dañ leen may tegtal boo xam ne ku ne war nga ko am di ko ngànnaayoo xaj na sax ñu bari am nañ ci yoon waaye bi ma leen di bëgg a jox yoon ba am solo la ci mucc ci accident moo xam moto ngay dawal moo xam oto ngay dawal wala dugg ci moo xam avion la moo xam train la moo xam lépp daal loo xam ne dañ koy war wara di ko dugg li ngay def nag boo duggee ci biir bu dee oto wala train wala avion jàngal téeméeri bismillahi rahmaani rahim cent deux fois téeméer ak ñaar boo noppee nga teg ca ñetti inna anzalnaahu mooy suratul xadri ba mu jeex inna anzalnaahu fi laylatil qadr nga jàng ko ñetti yoon wala nga jàng ko juróom-ñaari yoon tegtal boo am am solo la boo xam ne mag ñi daan nañ ko jëfandikoo lu baree bari incha allah ku koy faral di ko def yàlla dana la musal ci lépp loo dugg te danga nga wàcc ak jàmm incha allah muy cent deux bismillahi rahmaani rahim bu duggee ba toog teg ci ñetti inna anzalnaahu wala juróom-ñaar bu koy def saa boo duggee ci dara moo xam oto la moo xam train la moo xam da nga war welo wala nga war moto yàlla dana la musal ci accident ba mu naroon a am sax danga dem ba wàcc mu xew sa ginnaaw ci barke alxuraan kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey jii di leen ko baaxe ngeen war ngeen wéy nag di partager vidéo yi ak di eh, yokk abonnement bi ndax bokk na ci liy dundal chaîne bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.